que aujourd'hui li ñu war a def mooy fexe créer benn continuité au niveau lii mu dem géej directement et que et que à Lamsar ñu defal ñu ay canalisation yu relier bassin yi directement tout simplement parce que aujourd'hui y a même deux bassins mi ngi fi amul benn bu ñu servi on partout sous les eaux y a l'autoroute à péage moom mooy service bassin yi bassin yi di ñëw inondé euh, la route nationale vous voyez cest à solution bu ñu bëgg aujourd'hui vraiment que définitive bassin bi nekk fële au mhm. niveau de Poste Thiaroye ñu rattaché ko mu dem géej mhm. ñu sécuriser ko bu baax mhm. parce que aujourd'hui mi ngi débordé mi ngi dafa toj mur bi ñu créé dafa toj dugg te là c'est c'est vraiment c'est vraiment déplorable aujourd'hui nañu créer non c'est le bassin en fait le bassin, bassin de rétention fi nga wàccee juste bi y a un bassin a ta droite bassin boobu c'est pas relié directement vers vers la mer loolu moo ñu créer série dugg ci biir koñ bi donc ce bassin là en fait c'est c'est pas encore fini et ñun luy suñu problème mooy en fait les ouvriers même ils travaillent pas ils viennent tous les mois pendant toute une journée ils travaillent pas je pas kon lan lañ fay def moi personnellement ça fait deux jours sama véhicule mënul dugg. si versé ci bassin bi parce que retour à péage les services. li leer na nañ voilà. c'est-à-dire vous avez parlé du problème des trois bassins qui doivent être rattachés pour aller la mer. mais on va permettre au préfet. qui donc euh, est au niveau du département euh, de Pikine. Mhm. pour mu expliquer après aussi euh, voilà ñu joxat leen. monsieur le ministre avec votre permission l'état du Sénégal a. mais mën nga leen wax wolof comme ni ñu expliqué. dafa am dafa am projet ñoom xam nañ ko. Mhm. fiche 1 jeex on a engagé un fiche le PIS c'est le programme de mise hors d'eau de toute cette zone là qu'on appelle Pikine irrégulier sud. Ah, non, non, de changer. du maire. D'accord, vous allez parler après, mais je pense que c'est très important. ce qu'on est en train de voir mhm. mooy que ni c'est des citoyens qui connaissent qui, com qui comprennent et qui connaissent également mhm. l'état d'exécution des projets c'est important donc ce qui fait que c'est en toute transparence là va prendre va dispositions pour drainer l'eau en attendant que ces bassins-là soient connectés bon, bon, mhm. euh, parce que actuellement ce qui se passe c'est que en réalité euh, vous avez posé le problème donc euh, vous avez posé le problème

tel qu'il est en train d'être exécuté en termes de projet. Mais dans l'immédiat, nous le voyons, nous sommes dans les eaux. Donc l'urgence, c'est de faire partir d'abord ces eaux et ensuite mhm. dérouler. dans le cadre des projets. Mais avant de dérouler dans le cadre des projets, d'abord l'urgence, c'est de faire partir l'eau. maintenant, je sais que dans ce cadre-là, il y a des hydrocureurs qui ont été mobilisés, des motopompes. Le euh, gouverneur expliquer. ou bien monsieur le maire, voilà. on est fatigué. Il faudrait en fait qu'on nous aide à nous sortir dans ces eaux. On est fatigué. Toute cette zone, toute cette commune vit sous les eaux en fait depuis plusieurs années. C'est pas maintenant aujourd'hui en fait que les, nous sommes sous les eaux. C'est depuis plusieurs années. On voudrait vraiment une solution définitive. définitive. Ah. Mhm. le directeur général de l'ONAS expliqué, le préfet expliqué. Nous mhm. déclenché mm -hmm. Parce que fonctionnement normal lui permet tout de suite, tout de suite, tous les problèmes nous régler. Mm Mais quand même, après le plan Orsec, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le gouvernement le sait, le président euh, dans la réunion qu'il a présidée et même dans d'autres réunions il a été très clair mm -hmm. c'est-à-dire que pour moom situation réelle bi naka nit yi xam te xam nañ ko mhm. mais aussi nañ si apporter des solutions structurelles projet yi ngeen di gis projet de gestion des eaux pluviales loolu moo ko mhm. Dakar biir Dakar li fa amoon amatu fa dans certains quartiers euh, soo demee Kër Massar il y a des quartiers. Mais voilà. Pourquoi ne pas faire Mais voilà. Mais, mais, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire vous allez parler après. Ce que je veux dire. La phase 2, la phase 2 même, elle est phasée. C'est la première phase qui termine en deux. Plus de 300 femmes. bi ndox mi amee ñëpp dunoo jóg ak jeunesse beeg ñëpp li nga def nii nag duñ koy rafetlu monsieur le ministre di la sant di la gërëm ñi ngi ci ndox mi ci la ñuy fanaan ci la ñuy yendu ngeen ne leen moto pompe yi wax ak doomu aadama continuer assainissement bi ngeen def continuer leen ci nit ñi sonn nanu suñu continuer nii ba local dina metti de. bon d'accord donc Senelec ñu ngi koy remercier rek ñu ngi koy remercier ñun daaw bi ñu waxee le problème la sera réglé définitivement avec l'arrivée du canal mais le canal dafa gën a empirer la situation waaw na tuuti mais xam la lan lañ bëggoon min monsieur le ministre ñoom xam nga lan nous avait dit que comme canal bi fu mu yem on va mettre là-bas au moins deux pompes pour que ces pompes là une fois que ndox mi ñëw ces pompes la ils vont verser de l'autre côté du canal hmm. donc ñun vraiment ñu saluer ko ñu ne vraiment ADM ce qu'il a proposé mais kuy technicien di nga xam ne loolu mën na nekk mais ba ba mu taw pompe taxawu fa il a fallu que mu taw ba ñu inondé ñu indi fa une petite pompe et cette pompe là moom laa moom laa bëggoon ñu dem fa. j'ai compris voilà on renforce. parce que moi je suis tout le temps ici nous sommes dans c'est moi avec le colonel. cette pompe. très longtemps. cette pompe est là-bas. ñetti pompe pour 3 mètres. une pompe de 600 mètres cubes. mais ndox mi ndox mi évacue l'eau. Évidemment, il faut renforcer il faut renforcer cette pompe. mais il ne faut pas dire que c'est parce qu'il a plu. non la pompe est là. je suis toujours avec vous. c'est-à-dire que yow li nga wax leer na da nga bëgg c'est-à-dire quel que soit l'historique ce qui est important c'est qu'aujourd'hui il y a un besoin de renforcer la capacité de compenser ça. Mais donc tey jii xale yi sax ñu nekk kër ga sax ñu nekk suñu koñ sax mun nañ daw dem dugg foofu lab fa parce que ndax ndox bi ndox yi jóge fii di ñëw ndox ndox yi di jóge fii di ñëw parce que tey boo duggee suñu quartier yàlla détressement la bëggoon kii la nga ñëw boo duggoon suñu quartier boo xoolee rek nit ñi da nga am yërmande suñu quartier ku fa dugg am yërmande gars yi xur jamaa lañ koy woowe quartier Alioune Ndiaye la tudd waaw quartier Alioune daf xuur la quartier Alioune Ndiaye la tudd montagne 2 quartier Alioune Ndiaye xuur la quartier Alioune Ndiaye la tudd. donc ce léegi lu si j'ai bien compris. waaw ndox bi ñëw fii ndox bi ñuy bi parce que jàllul. Ah. jàllul donc ce qui fait yoon. am yoon wala ñu wala ñu ngacc ko mu bu ñu amee ay moto pompe tamit ay moto pompe. moto pompe boo xamante mën nañ ko tegaat si kii bi verser ko mu dem si lag ba amoon ay moto pompe yoo xamante ne tey bu ñu ko kiiwee mun nañ ko teg si kii bi. versé ko non déglu déglu may ko mu déjà man ñëw naa fii mhm. la solution il faut focarder c'est le ministre mhm. il faut mhm. régler le problème de la liaison ici et le problème est réglé pour le drainage gravitaire. merci merci. moom xam na lépp xam na lépp donc léegi c'est bien noté. après léegi ñu rester en contact. pour xool. par exemple comment mettre en œuvre une solution urgente pour faire sortir les quartiers des eaux. c'est ça le plus important. et on est très content de l'explication que vous avez donnée. Eh, ok merci monsieur le ministre.